moo tax coalition Benno Bokk Yaakaar di féliciter population thiessoise di leen remercier ndax amuñu seen fay di remercier aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy moom ki nga xam ne moom mooy le président de la république di ko encourager di ko sant di ko gërëm ci yeesal gi nga xam ne bëgg na koo yeesal li nga xam ne mooy constitution réew mi dëgëral ko moderniser ko population Sénégal yi ne ko nag d'accord nañ ci ak yow donc loolu dañ ko ci féliciter di wax rek ne dañu koy encourager aussi mu xam ne ñi nga xam ne ñoo woote noo aussi ay sénégalais lañ na continuer waxtaan ak ñépp pour l'intérêt du Sénégal di wax ne ci loolu nag ñun dañuy ñaawlu ñi nga xam ne tey jii noo nekkoon partisan du non te ñu ñàkk ba pare nag ñànki ndax jàpp naa ne kilifa soo ñàkkee danga war a nangu tey jii dégg nañ Ablaye Balde ca Ziguinchor moom gañe nañ ko Aïssata Tall Sall gañe nañ ko xalifa Sall gañe nañ ko Gakou gañe nañ ko ki nga xam ne mooy neex dëkkal mi ñu dëkkal fii di Idrissa gañe nañ ko te ñi ma tudd ñëpp ñoom ñëpp ku ci ne da ngaa bëgg a nekk président de la république waa ku mënta gañe ab département damaa bëgg a laaj nan la mën a xalaate gañam réew bay yor présidence de la république xam nga loolu ñàkk xam sa bopp mi ngi ci ñuy nag euh, ñaawlu bu baax li nga xam ne moom la Idrissa Seck wax ak ay partisans ndax lii ngeen gis PV la boo xam ne ay magistrat ñoo ko signé ba pare moom représentant am signé ko man mi ma nekkoon représentant di wii signé ko ñu wax ne résultat yi nii la demee coalition courant di oui moo gagné mu taxaw fii ci télé bi di wax naan ñoom ñoo gagné xam nga loolu mooy ñàkk ba pare ñànki comme moom nag jàng na arxuraan te chaque jour day wax waxu arxuraan dama koy wax rek benn conseil xam naa ne peut-être verset boobu da ko fàttee jàng ci yi muy faral di wax mooy yàlla moom dafay recommander waay gëmi ñu nangu dogal kon daal na dem seetaat bu baax xam naa loolu dafa nekk mbind mu saw ci li muy jàng moo tax gisu ko na dem xool loolu te yàpp naa ne bu ko xoolee ba gis ko liir ko su boobaa dinay nangu dogal xam ne population cees wan nañ ko ginnaaw dégg naa ko démb muy wax cees fii lañ ko def dëgg la fii lañ ko defoon waaye jàpp naa ne dem na ca ginnaaw léegi te lu ne ci ginnaaw kenn du ko xool ndax boo bëgg a avancer doo gestu boo bëggee sori dooy gestu donc di wax rek ne euh, nit nag moom metti na lool ndax depuis 16 ans day gagné Thiès musu ko perte. tey nag bu ñëwee rek perte ko mu war a xam ne population thiessoise yi ay nit yu mat lañ xam nga tey ji ñàkk respe ci population yi mooy wax wax achat de maanaam moom dafa wax ne waa Thiès dañ leen a jënd te xam nga loolu dafa rafetul moom mi nga xam ne cees lépp lañ ko jox lépp lañ ko defal tey jii amul lenn lu mu leen di faye mooy yéen waa Thiès dañ leen a jënd dañ leen jënd ak ceeb dañ leen a jënd ak saaku dañ leen a jënd ak xaalis loolu jàpp naa ne ku koy def rek moo koy xam waaye ñun xamuñu jënd parce que jàpp nañ ne population thiessoise yi ak mat gi ñu mat amuñu njëkk donc wax dëgg yàlla loolu dafa doon loo xam ne metti nañu lool ba ci kanamu yàlla moo tax ñu koy seedeel population thiessoise yi ne ko wax dëgg yàlla na nangu li nga xam ne moo am parce que perdre na département Thiès ba pare bëgg ci boole ñàkki je pense que loolu nekkul li nga xam ne moo gën di wax rek ne ñun la ñu doon def démb ak bërki démb tey lañ koy gën a ñoŋal dinañu continuer di dem ci population yi dinañu continuer di waxtaan ak ñoom te xam nañ ne booloo mooy doole te expérience bi ñu am ci élection yi mooy la nga xam ne moom mooy ànd te ñun ñëpp ànd tey jii amul kenn koo xamante ni nii mi ngi nekk APR wala nekk coalition benn bokk yaakaar di dem di waxe sa bopp tey soo gisee Thierno Alassane teewu fii fi Augustin teewu fii ku ne xam ne tey la àllarba dafa am conseil des ministres directeur général Siré Dia dafa am li nga xam ne mooy conseil d'administration tey donc am na ay liggéey yoo xam ne ci la ñu nekk waaye képp koo xam ne yaa ngi liggéey ak ñoom yaa ngi fii toog waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñi ngi nii toog waa Gëm sa bopp waa PIT waa démocratie libérale waa APR e. donc ñëpp ñi nga xam ne daal jàpp leen ne ñoo nekk coalition benn bokk yaakaar ku fi ñëwul sa ndaw ñëw na fi ba pare ñun dañu jàpp ne maintenant képp ku waxal coalition bi waxal nga ñëpp jaratul sax ñuy tudd keneen donc loolu nekk na loo xamante ne nii lu ñu war a leeral la te ñu xam xam ne population Thiessois li ñu soxla ci ñun mooy ñu booloo nekk benn parce que xiiroo ŋaayoo bu fekkoon dañ ko dëkkee dañ naan seen boppaleen leen tax a jóg mais bu ñu xamee ne ñun population thiessoise yi moo ñu tax a jóg te ñu gis nag le président de la république mu am ambition dans cette ville président de la république chantier de Thiès yi mi ngi koy àggale di tabax ISEP stade Lat Dior léegi mu pare Transrail nekk Dakar ko ferroviaire mu jëlaat ko ci loxo euh, ñi fi nekkoon ba pare jël doomu Thiessois teg ko ci kawam muy zo transport urbain bi gis ngeen li fi président def gis ngeen li nga xamante ni moom mooy wàllu ndox mi ca commune ouest ni ko président lijjante gis ngeen aussi li nga xamante ni mooy NSTS même bu fekkee ne amagul vitesse de croisière tijj na ngeen gis ne ICS bi ñu doon wax dee na mi ngi doxaat université Thiès gis ngeen ni mu def même palais des congrès bi nga xam ne moom moo nekkoon signement amitié gis ngeen ne pratiquement léegi mu pare jàpp naa ne su fekkee ne am nañ président bu mel noonu mu am ambition pour dëkk bi waa dëkk bi nag am nañ sañ-sañ am ci moom confiance bañ a jël seen confiance di ko jox koo xam ne duñ ko gis donc loolu moo doon li nga xam ne bëggoon nañ ko partager ak la presse maintenant on mais à la disposition de la presse pour d'éventuelles question on peut prendre par série de trois questions pour répondre oui soxna si